mbokk Samagal TV mbokku internet yi ñu ngi fii ci septième édition CEP cercle des éleveurs de la banlieue ma taxaw ak parcelle euh, sama waa ziar naa la Cissé maa ngi ziar mbokki Samagal TV di ziar ñëpp di ziar képp kuy seetaan site bi rek seen mbokkum taalibe la As Dioum bergerie Mala waa kër Serigne Fallou macha allah oui As euh, woon nañ départemental ba tey nga ñëwaat indil ma champion ndaanaan ak dafa naa ne production am nga indi macha allah euh, mais si si ginnaaw gi ndaanaan ba mu defee transfert bi tamit dama dama gis ni macha allah dafa def lu doy waar ci bergerie yi oui parce que gis naa ay doomam fu ne Euh, tey liggéey fan la tool ak euh, ba nga ñëwee lan nga liggéey ba am loolu. waaw xam nga aussi man euh, ba ma ñëwee ci milieu élevage dama ñëw liir secteur bi xam ne secteur bi lenn dong moo la ci mën a boole mooy ngam xar yu baax. Ah. amul relation humaine amul dara gars yi gëmuñu kenn xar bu baax lañ gëm. Ah. ba ma teelee liir loolu ma xam ne pour nga xar bu baax foog nga dabe. Ah. ma ñëw dabe jënd ay xar yu baax yaa ngi dégg am ay coach yu baax. yaa ngi dégg ba tey liggéey bi toll fii waaw man moom xaru baax moom wax dëgg si yàlla ci lay dox waaw lu dul xaru baax bëgguma waaw ndaanaan aussi euh, ba ma ko jëndee wax dëgg si yàlla defoon naa ci millions yu bari yaa ngi dégg mais réccu ma dara ndax la ma ca defoon mën naa ne génn yàgg na waaw ndax loolu moo mooy satisfaction quoi oui oui euh, moom dafa ñëw fekkoon fa Petit Malaw Petit am lu mu liggéey mu ñëw waroon ko yeggali ci digënté bobu ba mu ñëw da nga ñëw jël jël ay dom petit malo jox ko wala da nga ko utiwaat ay femelle. wa jox naa ko ay dom petit malaw utali naa ko ay femelle aussi dama dem recruter ay femelle utal ko ay jabar jox ko tamit ci dom petit malo yi mu ngi commencé wàcce kër ga dom petit malo yi ñu ngi commencé wacc ya ngi dégg moom aussi ndaanaan aussi def na ci peu de temps ci manam ba ma ko jëndee 6 mois rek résultat commencé na génn ndax ay premier dom taxawuñ wax dëgg ci yàlla te eh, yow gis nga transfert yu mag yi. yi ma ci def. parce que départemental bi xam image yoo xam ne nañ ko gis. waaw mooy euh, Cheikhou bi. waaw ko wan gars départemental toj ko. départemental bi jeex rek. Ah. ñu ne ci ba mu dem. waaw waaw sama xarit yu waaw yaa ngi dégg départemental dama fa génnee aussi ci la bu Kër Massar maa koy nuyu de passage moom aussi moo ci def millions yu bari wax dëgg si jël ko. ngi mu doomu ak ndaanaan mu nekk xar xar boo xamante ni élevage bàyyi na ko xel quoi. waaw ñu nekkoon fa ñaar benn bi mu ngi nii sax. benn mu dem waaye tamit. am na benn tëng moo fekk euh, bergerie Caps. ci procureur Issa mu ne ma doomu daanaan. <laughs> waaw waaw loolu xam <laughs> nga ndeysaan euh, procureur dafa baax ndeysaan. ndaxte ba foire ba la jeexee aussi après foire bi toujours la ñëw jënd benn doomu petit malo ci man. Ah. ci euh, doomu petit malo yu mu yóbbu mu ñëw jël ci benn foar bi aussi ci biir foar bi la ñëw ne ma kat bëgg naa doomu ndaanaan bi mu nekk nit ku baax moo xam ne loo xamante ne nekkul woon logique. Ah. ci logique élevage waruma ko woon a génne ndax xar bi ni mu mel. mais aussi euh, nit ki bu bàyyi ñëpp fii 271 box ñoo fi ah. exposé. procureur Issa Ndiaye bàyyi ñëpp ne ma sa xar laa bëgg. Ah. loolu rek satisfaction la ndam la et puis ñu def fi transfert aussi ci biir foire bi mu nekk lu ma neex. loolu fii la xewee. non fii la xewee fii la xewee. léegi laa ko ko jox ci biir foire bi. Wii. tey la xanaa jógee léegi moom moo ko. tey tey jii laa ko ko jox. macha allah tey jii laa ko ko jox mu nekk satisfaction ci man di ko ci ñaanal yàlla aussi yàlla na nekk xar bu ñuy dégg dans dans le milieu d'élevage. parce que xar bu ma amoon yaakaar la man tamit eh, ma jox ko ko parce que dafa baax. non moom moom moom loo ko jox rek. ñàkkoo ko parce que moom it noonu la def dafa liggéey ay champion joxe ko. waaw waaw waaw moom. xam nga ku juddu la Kayaar rek fa la fa la fa la champion yam quoi yaa ngi dégg. Euh, mu nekk nit ku baax nit koo xamante ni dañuy déggante ma nekk fii ma nekk Europe. tout le temps dañuy déggante nit mu nekk nit ku baax. xar bi ma ko jox ñu bëri laaj nañ ma ko wax dëgg si yàlla ma ne bii joxe ma ko. mais moom ba ma ko laajee wax dëgg si sañu ma woon a bañ. te baat ak tontu la aussi nekk neex a jëflanteel. dama ne ko lii laa koy joxee rek xam lu ma ci wax teggil ma ci benn 500 mille mu jël ko. mu jël ko xam nga kooku aussi dafa neex a jëflanteel. macha allah euh, euh, champion champion. bopp euh, box bële premier box bi dama gis nga leen di fa ay jeune mooy jeune mâle bi di seexu njugo bi ugo bi ak ay ay ay tëng waaw waaw waaw box bi dama ci dugal euh, sama benn jeune mâle boo xamante ni yaayam doomu pambooj la euh, papam di doom papam di ndaanaan moom laa fa dugal dugal fa benn doomu alaaj tam alaaj tam doomu papa la boo xam ne dama ko recruter aussi mooy bu ñuul bi borom bopp bu rafet bi non non non non bële bu ñuul bi. ah bu weex ñuul bi. waaw yaa ngi dégg léegi ma dugal fa aussi benn doomu major. major doomu bâtonnier. yaa ngi dégg dugal fa aussi benn doomu. petit maalo bi. mooy ñebe bi ñebe bi femelle ñebe bi waaw femelle ñebe bi. moom aussi dafa ànd ak ñaari doomam. ñaari doom yëpp ay doomu ndaanaan lañ. muy beneen ñebe bi ak ak ak ak borom euh, ak xar bu ñuul bu ndaw bi. yaa ngi dégg moom aussi doomu ndaanaan la machallah oui ah, waaw ok mu nekk mooy premier boss bi waaw kon doomu ak doomu petit malaw la fa jël ak ak ñaari ñaari añeel yi. ak ñaari añeel yi ñaari añeel yi ñoo bokk ndey ak baay. ak jeune mal bi moom la fa jur quoi. kii tamit ma ngi doom petit malaw la aussi moom ma ngi door tëbu. sori na waaw borom ñebe bi petit la aussi benen bi doomu Alaaji Thiam la. oui allah mooy premier box bi mooy premier box bi. waaye dafa nokk fii tamit ndaanaan dafa ñëw ànd ak ay jafaram wala. waaw ndaanaan fii dafa ñëw ànd ak ay jeegam parce que mu ngi ànd ak parmi sama meilleure famille mu ngi ànd ak Khady ya, Ndiaye. yaa ngi dégg ànd ak aussi Tata Tata ak Khady Ndiaye ñoo bokk benn yaay aussi ñoom li gën a garaaw ci foire mooy ñoom dama leen indi ñoom ñoom ak sama turandoo xar bi ñu mën. tuddee ci foire bi. bi def exploit ci foire bi Yuga tuddee ma ko ñoom ñoo bokk benn yaay. Yuga sama copain Yuga. mooy aslaw bi mi ngay dégg mu toj foire bi. yaa ngi dégg Yuga ma ko tuddee. ma indil ko ñaari xar yoo xam ne ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk benn yaay. ba pare dend ak moom boxu ñu def benn exploit bu garaaw mooy aslaw bi ma la ngay gis. yaa ngi dégg noonu la demee. Ah, kon bergerie Adiya bële ngay wax. bergerie Adiya Yuga Fall. bi. kee mooy aslaw aslaw bi ma ngi noonu espoir la bu doy waar kon xale bi yow lañ ko tuddee. kooku man lañ ah, na de. mu nekk satisfaction bu ma ah, neex. ba pare non kooku xar la ndaanaanu xar la. Ah. moom ndaanaan ñoo bokk benn papa muy ay ñoom ñaar ay doomu sulkeer lañ. xanaa élégance bi ci yow ko jëlee. waa gis nga waaw waaw waaw noonu la surtout surtout surtout. xam nga yow da koy takk ba mu naay. waaw waaw gis nga gis mais nit nit nit nit amul lu te da war a yiw aussi. yaa ngi dégg looloo tax aussi ñun aussi. fu ñuy dem dañuy bëgg di yiw daal. léegi euh, beneen problème ak euh, euh, yaayu seex yi moo nekk moo seex transfert bi nga demoon seex yi. waaw yaa moo nekk ne. waaw seen ñooñu du ñu ay seex. maanaam nit ak jarbaatam la. voilà ñaari jeune Mali. <laughs> ñaari jeune Mali dañoo tolloo woon dañoo niroo woon ay seex ci nit gars yi nañu ko ak jarbaatam la woon kenn ki dem. moo nekk nii. waaw waaw yaay moo nekk Khady Ndiaye. Khady Ndiaye nii. Khady Ndiaye moo moo tojoon fii. moo fi tojoon jëloon fii quatrième place espoir. daaw yaa ngi dégg non non ça fait deux ans de cela. yaa ngi dégg après mu demoon aussi fii la jëloon fa si quatrième place yaa ngi dégg mu nekk xar boo xamante ni élevage yëpp xam nañ ko yaa ngi dégg moom moo juróon jeune mâle bu garaaw ba ma joxe parce que élevage mënoo téye lépp boo juru leen daanaan aussi il faut il faut nga joxe ko macha allah yaa ngi dégg léegi box bi aussi maa ngi fiy téye benn doom papa yaayam di doomu sulker moo nekk nii taxaw waaw uh-huh. doom papa la uh-huh. doom papa la yaayam di doomu sulker moom aussi bii mu ëmb mooy deuxième portée xale la yaa ngi dégg maa ngi ma ma nga ak Tata aussi. waaw Tata moo jur Tata moo jur Dieye Dieye laa jox procureur Issa Ndiaye. fii la nekkoon ci box bi léegi lañ def transfert bi léegi la dem. oui. Ah, ah, mooy mooy la champion la Khady Ndiaye. waaw Khady aussi mu ngi nàmpal benn doomam boo xam ne doomu petit malaw la. yaa ngi dégg mu nekk. añeel bu doy war bo xamanteni wax deug sa yàlla. euh mu mang ci 2 mois quelques jours hein élevage gep ma ci top mais aussi dafa nekk xar bo xamanteni ni sama yoon kay la waruma ko joxe. motax aussi ma écouter ko quoi. waaw il faut ma téye quoi loolu la quoi. léegi naataan nak ñu ñaata mois. Euh, actuellement je crois bien su ma bañ mo ngi dugg 27 mois je crois oui oui. ndaanaan mu ngi 27 mois xale la. macha allah dañu woon xay xar xar concours. non non non ren dugaluma dara. ren dugaluma dara plus belle laa dugaloon. waaw ngi dégg moom kese laa dugaloon quoi gars yi wax nañu aussi espoir waroon ko dugal mais ma ne ah non après rek comme nga xarit dafa sore bu ma jël risque quoi. waaw noonu la demee na. Euh, comme d'habitude et puis ndaanaan naa ci transfert ba waaye boobaak léegi tamit damay bëgg parce que damay dégg ay rumeur muy def liggéey bu doy ci CBC. waaw tey boo xoolee rek waa parcelle fii. waaw boo xoolee tey jii. waaw. trois doomu ndaanaan tey ñu ngi fii di toj. Iba Sarr jox naa ko benn doomu ndaanaan. waaw Pène aussi ma ngi am benn doomu ndaanaan. boo xamante ni à mois la dugg génn parmi les sept meilleurs espoirs te xar yëpp ko mag mu génn parmi les sept meilleurs espoirs loolu rek satisfaction la. nga ñëw foire sa sa xar doomam ñëw bokk parmi les meilleurs. jël euh, bokk parmi les euh, sept sept meilleurs feux espoir loolu rek satisfaction la quoi. yaa ngi dégg doomu Pédima la aussi ñëw aussi def exploit aussi la même chose. oui mais champion euh, kontaan naa exposition bi rafet na liggéey bi rafet na sama champion sama espoir boobu tam Petit Malaw moom it kenn demul mu dese. ndax moom it gis naa ay doomam ñoo xam ni moom it def na liggéey bu doy waar Belgique champion. non macha allah Petit Malaw daa mën. Hein? Petit Malaw instant bi rek tey record record TP ci ci ci annuel yi concours ah. doomam moo ko jël il a fait une très belle exposition yaa ngi dégg boo demee bergerie Babacar Thiam rek yaa ngi dégg nga fekk fa doom boo xamante ne nii élevage yëpp ko bëgg fii boo xoolee espoir bi nekk fii doom petit malaw la mbote bi agnel bi doom petit malaw la moom aussi wax dëgg saa liggéey na liggéey bu liggéey bu jaar yoon sama kër. bu jaar yoon bu jaar yoon macha allah je me rappelle jour bi ñu njëkk a dajee ren li waaw mu ñu dugal ko sama espoir. mu nekk lu nice. ba tey élevage càmm euh, bi ñëw ba toll fii macha allah. champion euh, dabe nga mais liggéey nga. waaw waaw dabe naa aussi am naa patience. ma lay jël jamono jooju yaa ngi naan ma ah man de damay damay càmmantu damay doog a dugg. Ah, maa ngi la maa ngi ut mais tey nag euh, am naa satisfaction. waaw waaw sant rek sant rek xam nga élevage mi dafa nekk milieu boo xamante ne nii dafa noble quoi te façon nit bu ne moo ci nekk te dafa bëri ay nit yu bien aussi ci nekk euh, mënuma fay kenn damay sant sama gars yi aussi parce que ñun dañoo def lu rafet toujours saa bu ñuy génn foire ñu ñëpp ay bokkandoo ensemble génn ku ci mel ne Yuga Moussa Bëgg Kasba Iba Sarr Ablaye Lay yaa ngi dégg Amène Ndiaye ñun ñëpp ñun ñoo rangaloo suñuy box du Pen mu nekk affaire bu rafet ñu ñu yëkkatandoo di dóorandoo loolu aussi suñu fort la aussi quoi waa kontaan naa di gërëm waa site bi ñëpp euh, di di di di di la di la ñaanal yow Cissé. Samagal TV yow yow da ngay liggéey ci élevage lu doy waar. loo xamante ni wax dëgg sa yàlla ñi lay suivre yëpp xam na yaa ngi liggéey ci élevage waa dañ lay ñaanal rek di ñaanal site bi gën a jëm ca kanam waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. waa euh, bergerie Mala waa kër Serigne Fall ma ngi Parcelles Assainies unité 1 du taliw bees ko ñu Jos euh, villa numéro 73 numéro téléphone bi di 77 880 62 62 bo ci woté wala nga woté ci whatsapp bi di ngay ñew bergerie Mala waa kër Serigne Fall. kon daan naa sant. waaw waaw nañ bu baax ci yow bëgg nañ bu baax ci sé mbokk sama gal ba légui maa ngi bergerie Malaw ci nek nag champion bo xamni mom mom mo nek ci gétt chaque fois ma day moom foire muy def lu doy waar euh, champion euh, la may wax tey. Euh, maa ngi lay bi ma la nuyoo di nuyu waa foire bi yëpp. am di am mbégte lool ci yow ah. ci teewaay bi. yaa tey ñu ñëw ci sept. ñu ngi fi jël fi deux box. waa Bétri Bétri Maaro waa tey ñu indi Dana ak ay doomam quoi. waaw kii nag bokk na si benn si benn doomam muy muy doomu Dana. nekk doomu Pambul. léegi daanaka jur ko daanaka doo moom mi ngi instant bi neuf mois. ñu am yaakaar loolu ci moom ñu téye ko ci bésir bi quoi. macha allah mois. Euh, mu àndoon ak beneen naataangoom ca ca ca foire ba. waaw waaw waaw waaye beneen naataangoom boo xamante ni euh, li ma mën a wax boobu maanaam yaayu yaayam moo ko boobu kii boobu noonu. biir mooy yaayu yaayu boobu noonu. waaw maam la ci biir. macha allah parce que moo jur léegi nag boobu noonu moom suñu jox joxe nañ ko jamono jële. macha allah waaw bii nag ñu téye ko téyegul ko ci bergerie bi. Euh, ndax yaa am yaakaar ci moom ko Tambey kontaan naa. ok maa la